madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun munjin min sunubin wa min sulmi ما لا أني بنبي كل فاسد وسرت بي عبدا خديما بلا خمي من الله رب العرش أبقي صلاة بتسليم للمصطفى الموجل اليمين mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sakku ci yéen ñaan di am mbégte dellu ci sunu jataay bi ñuy amal fii ci 24 actu ci jataay bi nu tudde madinatu ilmi ñu leen koy amal ayu bis ku jot tey nag ñu fas yéene dellu ci nin ko baaxoo def ci jataay yi di ci ànd ak yéen tey nag ñu bëgg a waxtaane saxaaba yi saxaabatu rasul bëgg cee jiital lan ki nga xam ne mooy ki jiitu ci saxaaba yi muy Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar nag moom lan bëgg a waxtaane tuuti ci dundam rek ndax xam ngeen ne jataay yi du gudd lool waaye dinañ ci waxtaane tuuti bu ko defee saxaaba yi jàng seen ak dund yaakaar naa mooy xam-xam dëgg ndax ñoom ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm yonent bi ñoo njëkk ànd ak moom ñoo ko jàppale ci lislaam bi Seydina Abubakar mi nag doonoon ko ci ràññeeku koo xamante ni yonante bi salaa salaam da koo tagg-tagg yu yéeme yéeme moo ko tuddee siddiq ki nga xam ne mooy ginnaaw bu yonante yi paase ñi jihaat ci yoonu yàlla sax Seydina as-siddiq mooy ki nga xam ne mooy kii ci gën mooy Seydina Abubakar Seydina Abubakar nag am ay jagle yu bari moo njëkk gëm yonante bi salaa salaam ci mag ñi doon koo xamante ni tamit yonent bi daf koo jagleeloon ci boppam lu baree baree bari ndax moom bi yonent bi di wootee lislaam mooy ki ko njëkk a dëggalal bi ko waxee gàddaay gi ak riñaan gi ne ko sa yonent bi nee na dafa gàddaayoon dafa riñaan tey mu ne leen moo ko wax ñu ne ko waaw mu ne gëm naa ko <coughs> ñu ne ko ah yow noo koy gëmee mu ne ko man may toog fii ci wetam ñuy toog mu ne ma Jibril ñëw na fi léegi nee na ma nangam nangam ma gëm ko waxantuma su ne ma dem naa béréb sàngam loola dama koy gëm ne leen moom lu mu wax rek yàlla moo ko wax loolu waxe mukk bakkanam sinaa sina kër nag doonoon koo xamante ni ku jàppale yonant bi salaa salaam bari na ñu bari ñooy dégg ci lislaam bi ci saxaaba yi sina Abubakar moo leen dugal moo leen jënd dugal leen ci lislaam ak ñi doonoon ay xaritam yonante bi wootee dafa woo ay xaritam ñëpp mu fexe ba convoquer leen dugaleel leen yaayam sax moo ko indi bi mu feebaree mu wax yonante bi salaa salaam ne doo woo sama yaay ndax dugal ko ci lislaam yonante bi woo yaayam dugal ko ci lislaam Seydina Ousmane mii ngeen di dégg Ousmane nga xam ne moo doon ñeenteelu ñetteelu xalifa yonante bi salaa salaam Seydina Aboubacar moo ko dugal ci lislaam Bilal ibnu Rabah Bilal moomu ab jaam la woon Seyna Aboubacar moo fekk ñu koy dóor di ko lakk di ko teg ay xeer Seyna Aboubacar wax jaam boobu ne ko munoo kii ko ilifoon munoo ragal yàlla nga bàyyi kii mu ne ko a ah, jënd ko mu ne ko am naa ab jaam boo xamante ni moo ëpp kàttan fuuf bilaal mii moo ko gën a rëy gën koo mën a liggéey te ma la koo jox nga jox ma ko mu ne ko waaw am nañu wax sax ne da koo jënd ci xaalis waaye lu mën a am rek moom moo ko dugal ci lislaam yonante bi salaa salaam bi muy woote benn xare boo xamante ni daf ko woote dafa woo jullit yëpp ne leen lu waaye am nañ indi ñu dem ñu yóbbu ko ca xare bi ñu waajale ko xare bi Seydina Aboubacar bi mu dikkee indi alalam bi yonante bi Ousmane indi Seydina Omar indi bi mu leen laajee ne Seydina Aboubacar loo bàyyi sa kër mu ne ko yàlla ak yonantam laa fa bàyyi indi naa lépp lu ma amoon ci alal jox la ko loolu xam ngeen ne lu rëy rëy rëy la yonante bi salaa salaam bi muy gàddaay te gàddaay gi booba waa Màkka di ko sonal lool son métti wu mettee métti eh, nit ñi di ko wax génnal génnal mu ne leen yàlla jotaguma ndigal Seydina Aboubacar benn bis mu toog ak digg bëccëg yonante bi waax waaxu mu tàng heure yi añ yooyu daal di ñëw këram ne ko dama bëgg nga waaj yàlla digal na ma ma gàddaay te yow lay àndal waaye Seydina Aboubacar nee na dafa jooy jooy yu metti ndax mbégte ne yonante bi ne ko waajalal pour ñu dem mu dem wuti giléem yoo xamante ni ak dund boo xam ni mu toll ba bi ñuy laata ag Makka fi ñu doon jaar ci xunti meeg fan nekkoon yëpp doomi Seydina Aboubacar moo doon indi añ ban fa doon añ lekk yan fa lekk moom moo ko doon indi Seydina Aboubacar doy na sëkk doomam muy Aysa bi ko yonante bi jël juróom-benn at la am juróom-benn at eh, boroom xam-xam yi nee nañ juróom-ñeenti at ci la wéeteeg moom ci la ko indee këram nga xam ne xale bu ndaw ci la ko jële Aysa mas naa toog ak Seydina yonante bi salaa salaam ne ko waaw kan moo gën ci góor ñi mu ne sa baay mooy ki ci gën Abubakar mu ne ko jigéen ñi ku ci gën mu ne ko yow yaay ki ci gën ci jigéen loolu marta boobu rëy koo xamante ni jullit yépp bu dajee sa baay ci gën bu nu noppee yow yaay ki ci gën te yonante bi salaa salaam dafa bëggoon Seydina Abubakar ba Seydina Abubakar bi nu àndee ci xunti mi moo yonent bi salaa salaam wax na ne da daan ànd ak gàddaay gi da daan jikki-jikki dox ci kanamu yonent bi daal di koy wër nes tuuti mu ñëw ci sawu bi ci ginnaawam yenn saa yi mu wër ci loxo jooram wala càmmeñam yonent bi ne ko loo jublu ci lii ngay def mu ne dama bëgg luy lore bu dikkee mu lor ma soog laa lor so balaa agsi ci sa kaw wax na ne yonent bi salaa salaam bi mu nekkee ci biir xunt mi tëdd si nelaw sax day nelaw nii tëdd ci pooju Seydina bakar di nelaw di nelaw Seydina Aboubacar nee na foofu benn jaan di génn jaan jàng bërbëri di ñëw Seydina Aboubacar jël tànkam roof ko ci pax mi nee na mu màtt ko nes tuuti ñaq wi di toq ci yonante bi yonante bi yeewu daal dina ko wax Aboubacar lii lan la mu ne ko xanaa jaanama màtt xam nga ne kooku bëggeel googu gënn bëggeel gënu ko rëy Seydina wax ne yonante bi sallallahu alayhi maanaam dara dara lor ko maanaam mu lor ma man moom ma gënal mu lor yonent bi salaahu salaam bi fi yonent bi di laata jóge bi mu tolloo ci feebar xam nga ne yonent bi mu fiy jóge waxul kenn mu jiite bu ma fi jógee kenn may wuutu waxul loolu waaye bi mu tëddee ci feebar bi nga xam ne moo koy yóbbu dafa wax ne ana Aysa waxal sa baay mu jiite Seydina Abubakar soxna Aysa dem ci Omar ne ko Omar jiiteel yonante bi sàlla sa dégg baatu naa Omar ne ko demal waxuma Abu mu jiite neel Aboubacar mu jiite laa wax yàlla bañ na fu yonante bi nekkul Aboubacar kenn di ko fa jiite nee na Aboubacar taxaw Aysa nee na ko laajee ne lu tax yonante bi ne la demal wax kër mu jiite nga dem ci kee mu ne ko damaa xam nit ñi cofeel gën am ci yonante bi fu yonante bi daan taxaw keneen bu fa yonante bi taxul keneen ku fa taxaw di nga soof nit ñi loolu laa doon bañal sama baay Seydina Abu Bakar yonent bi salaahu salaam euh, bi nga xamee ne mi ngi fi waaj a jóge daf ko jiital ci ay mbir yu bari jiital na ko ci julli jiital na ko ci xare yoo xamante ni amoon na ku nekk xam na ne Seydina Abu Bakar li ëppoon li muy diisool moom la ëppoon lu diisool bañ na ko ba mën na ko da doon wax Seydina Abu Bakar ne ko yonent bii de da dud am xarit waaye su doon am xarit yow lay def xarit yow yaay sama xarit ci wàllu diine maanaam ginnaaw yonante bi yonante bi Seydina Aboubacar la waxoon ne ko bu ma doon am xarit yow yaay doon sama xarit waaye man yàlla mooy sama xarit waaye doy na sëkk mu jël doomam ju ndaw yore ko te yonante bi nee na ñi mu yore woon ci jigéen kenn ku ci mës a doon jàng amul ku du soxna Aysa bëggoon Aysa ba nga xam ne Seydina Aboubacar mosaan di kër yonante bi fekk Aysa di toog ci wetam wala di wax ak yonante bi da koy arsaleel di ko gëdd yonent bi ne ko bàyyil jàmbur day wax ak borom këram bàyyi ko yow bàyyam nga waaye day wax ak borom këram bi yonent bi génnee àdduna Seydina toog ci xilaafa gi bi mu toogee bi bi génnee àdduna sax saxaaba yépp Seydina Omar taaw fa yoru jaasi Seydina Aliou nekk fee saxaaba yépp jaxasoo Seydina kër moo réglé waat problème yi moo ne képp koo xam yàlla nga doon jaamu yàlla yonent bi nga doon jaamu yonante bi xat maata waaye képp koo xamante nii nag yàlla nga doon jaamu yàlla du fi jóge nee na Seydina Omar jékki-jékki jóg te fekk ne dafa dikk Seydina Omar Omar déglu ma Omar naa ko ne ma yonante bi jóge na fi ma tàggal sa bopp ak sa mën naa ko Omar déglul Omar déglul Omar déglul ba ci yàgg bi mu jékki-jékkee rek wax loolu la Omar na yàlla jaasi ji ne ko bu fekkee yàlla nga doon jaamu yàlla ju bu fekkee yonante bi nag yonante bi faatu na xam ngeen ne loolu lu gën a kii la problème bu ku ko mën a lijjanti rek daanaka yaa gën a yeewu ci jullit yi ndax fekk na problème bu ñëwee xel yépp ay jaxasoo ki nga xam ne xelam jaxasoo wut nag kooku mooy ki gën ci nit ñi mooy gis nga ne musiba bu amee ña ca gën a lëj ña ca gën a taq mooy ña ca gën a dox ak di ca wax moo tax saa boo diggee problème am toogal sa kër rek waaye boo jógee dox dem ak dikk yaay ki ci gën a yanu ci coow li moo tax Seydina Abubakar moo doon doonoon bi yonante bi génne àdduna mooy ki gënoon a nite ci saxaaba yi biñ dikkee ne ko dañ lay fal nga jiite dane déedéet nan nan fal Omar dafa bañ a bañ bañ ba ginnaaw bi ñépp ne ko yow yaay jiite mu soog a jiite bi Omar di jaayante ak moom sax Omar tàllalal ma jaayante mu ne ko déedéet man maay jaayante daana wax ne diine jii nag kenn du ci def dara lu dul da nga koo jële ci yàlla ak yonante bi wala Seydina Jibril inna diine naa mabniyun ala naqla ala munasabati al aqli nee na diine du tabaxu ci xel maanaam lii jub na ci sama xel rek déedéet da naa yàlla nee na yonante bi nee na jibril loolu mooy diine ji bi mu toogee sax nit ñi woyefam na comme dafa lewatoon nii gaaw a jooy mënul woon a xool yonante bi lu bari ak di gaaw a jooy lu bari mënu ko woon bi mu toogee xam naa loolu jullit yi yëg ne comme ku lewet la ñu tàmbali ne ko ginnaaw asaka yi daan joxe moom duñ ko joxeeti ndax asaka yooyu yonante bi lañ ko daan jox dootuñu la ko jox am ñenn ñu tàmbali sax di woote ak yonante naa ko ñun ñooy yonante bi mu dikk nag ne képp koo xamante ni daa nga joxe yon ad yonante bi asaka te joxoo ko ni naa xeex Seydina Omar dikk ci moom ne ko waaw est jar na xeex lii mënoo woon a bàyyi noonu rek mu ne ko Omar képp koo xamante ni daana joxe fépp dugub di ko jox yonante bi wala fépp tàndarum boo ko indiwul ñu def ko ci baytil maal dinaa xeex ak yow daal di tàmbali woo arma Seydina Omar booba dafa tiitoon tiit ba nga xam ne ne man damaa xam na ba Aboubacar bu a dogu ci mbir nam daan def moo tax bi mu dogoo rek man mu mujj bàyyi mbir mi Seydina Omar sax Aboubacar nee na ko yow ni nga dëgëre woon bi fi yonante bi nekk yow yonante bi jóge fi nga bëgg a indi nii dëgër sa nga bëgg a yolomal nii noo la ci la tàmbale ba xeex boobu ci la xeex ba nit ñi tàmbale di indi asaka bi mu toogee dafa wax ne képp koo xamante ni yaay ko am doole boo dikkee ci man boo amul dëgg yaay ki néew doole ki néew doole boo amee dëgg mooy ki am doole ci man ku ci nekk dinaa ko jox àqam jamu yeeyoo mooy li ma doon wax léegi jël ku nekk nga jox ko ak àqam ci waxtoom sina Abubakar noonu la tàmbali woon nekk lim toog xilaafa bariwul ñaari at ak ñetti weer la toog jiite ci kii bi daal di faatu waaye ku nekk xam na ne dund gu barkeel la dund ndax dund mënul paase nga wuutu yonante bi njëkk ko wuuti ñëpp nangul la nga wootu ko la yonante bi daan digle nga koy digle la mu daan bañ bi mu toogee dana man kat gënuma leen ta loolu lu baax ci kilifa la dama leen a jiite rek waaye gënuma leen ëpp ma leen xam-xam su ma jubalee ngeen ànd ak man su ma dëngalee tamit ngeen jubbanti ma am na ñoo xam bu jiitee dañuy jàpp ne ñoo raw ci njàng wala ñoo gën wala seen personnalité fekk na yàlla moo la fa teg rek gënoo ndax ngëneel moom ni ko alxuraan di waxe mooy ki gën mooy ki gën ki gën a ragal yàlla Seydina Aboubacar mas nañ koo fekk mu toog nii nee na fi mu toog mu téye làmmañam di ko wiñaar di wiñaar nee na ñi ko bett ne ko loo ci jublu mu ne leen làmmañ daf maa rotal ci rotuwaay maanaam mooy làmmañ kenn mënu cee mucc dalay kàmb la ko yonante bi salaa salaam nee na ëllëg ña ëpp sawara ña fay dem am na ñoom seen làmmiña leen fay yóbbu maanaam wax jun wax fekk mbir nga wax ca xoola tey nit ñi li ñuy nekk ci problème mu jàmbur ci derub jàmbur di wax di wax te wax ji ngay wax amoo benn njariñ amoo ci firnde amoo ci dara waaye yaa ngi toog rek di wax ñoom nag loola dañ ko ragaloon moo tax Seydina Aboubacar daan moytu di wax coow coow lu bari buñ ko masaana laaj laaju diine sax bu bi nekkee day jàpp ci loxo ki ko laaj ne ko nan dem ci yonante bi te xam na ko kat waaye ragal a wax ci diine da yonante bi dane képp koo waxal nga ma lu ma waxul sa gétt ma nga ca sawara Seydina Aboubacar da daan moytu loolu daan moytu loolu tamit saxaaba yi mu nekk ci seen kanam wane ne leen moo leen jiite wane ne moom mooy njiit li buñ mosaane dikk ci moom di ko wax mbir day woo Seydina Omar woo Ousmane woo saxaaba yooyu ñu diisoo ci ñu bare bare bare bi muy nekk sax dañ koo xawoon a mere ndax lewet googu mu lewetoon ne Seydina Aboubacar warut woon a toog ndax sëy Seydina Aliou moo gën a jege yonante bi moo nangam ba mere ko ci mere woon nañ ko ci mer mu xaw a kii nag waaye loolu lépp nekk xam na ne du dëgg ndax moom fi yonante bi nekk jiitale woon na leen am nag jenn jigéen ju mas a dikk ci yonante bi ne ko damaa soxla ndimbal aajo ju bëgg ci moom yonante bi ne ko da dem ba bis sàngam nga ñëw waxtu sàngam <clears throat> nee na soxna si ci boppam daan ne ko waaw bu ma dikkaatee fekkuma la fi xam naa li ko bëgg wax boo faatoo ci diggante bi wala nangam mu ne ko boo mu fekkul nga fekk Seydina Abubakar loolu kon <clears throat> loolu ku nekk xam na ne kon junjul la wane ne ko nangam ndax booba ay doomam a nga fi ñeneen a nga fi te mënoon na ko na beneen addis bu mu waxaat yonante bi ne jiite Abubakar yàlla sib na loolu keneen kuy jiite Abubakar ku dut ab yonant si yàlla sib na loolu mooy wane na kon moom moo war a toog xilaafa bi mu toogee nag ci la tàmbali réaliser lu baree baree bari euh, lu baree baree bari doon amoon jikko yu rafet bëggoon saxaaba yi nag ni mu bëggee woon boppam mu bëgg leen am na ko ñuy wax jaxfar jaxfar takkoon na soxna soo xamante ni waaw dana soxna soo xamante ni daf ko takkoon bi mu ko woccee bi mu kenn bi nelawee kooka jaafar takk ko bi jaafar nelawee Seyna Aliou takk ko ñoom ñoom ñëpp ku ci nekk nag am naa moom doom sax soxna si am sëy naa ak Seyna Aboubacar doom mu tuddee ko yonante mu am ak jaafar doom jaafar tuddee ko yonante bi xisa bi nag li ma koy nettali ci jigéen ñi sax laa ko gën a jëmale ndax ñu xaw cee kii tuuti soxna soosu bi mu amee Seydina kër doom mu tuddee ko yonante bi moo bi kër génne àdduna mu dem ci Jaafar am moom doom Jaafar tuddee ko yonante bi bi fi Seydina Aliou nekkee am ak moom nekk ak moom ñaari doomam yooyu mu amoon nag ñoom ñu toog di werante di wax ku gën bàyyi ku gën nangam ba dikk ci soxna si seen yaay ne ko kii daf may wax maa gën bàyyi di werante mu ne ko yow de sa baay bu dee ca mag ña ku la gën bàyyi gisuma ko ci Seydina kër la ko bëgg a wax ndax mag ne ko bu dee jaafar bu dee ci xale yi nag ku gën sa baay gisuma ko ci xale yi muy jaafar xam ngeen ne kooku baax na ay baay lool baax na ay kii nee na bi mu dikkee sëy naa alliw xaw a gis boppam mer ne ko waaw ah yow def baweloo ma fi dara mu ne ko su ñuy wax ay baax kay bay di tëkkale ba sëy naa Aliou ñuy wax ak baaxam ci ñooñu xam nga ne baaxuk Aliou jégg na dayo ay loolu lépp day wane ne jigéen bu dee sëy fu baax bu fa jógee na wutalaat ay doomam bu leen mënta wutalaat ku mel ni moom waaye bu mu wutalaat koo xamante ni kii ka baayam daf mel ni mën naa nekk baay buy yenu ay saaku kële ay baayam di doon baay bu doon nangam maanaam fexe ba fi ngay jóge sa doom yi doo leen gàcceel maanaam ñoom ñëpp nga fexe ba jenn daraja doo leen ko gëna laate gi ndax ñaar ñooñu tey bu fekkoon ne soxna sa nee na ko ah kii kay sa baay kii gën sa baay kii gën sa baay nangam waaye fexe na ba ñoom ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk kenn mënul ne maa kenn baay ndax nee na ko bu dee ca mag ña ku gën sa baay gisuma ko bu dee gone yi ku gën sa baay gisuma ko mooy ëllëg bu la yàlla nattoo ngay sëy fenn boo fu jógee wutaatal ku gën kooku boo ko mënta am wutal waaye bu mu yées mukk mukk mukk ndax doom ya ngay amaat ñoom ëllëg yow mën ngaa bañ a xoole noonu mais ñoom ñooy xoole noonu ak ah, kii da bàyyi man sama baay bi nangam te loolu day am na ngay gis koo xamante ni ah fii lay dugg tey bu ëllëgee mu duggaat feneen doom yi kii sax doomam mën na di yónni kële maanaam kii ka njëkk am wala ka mujj am sax man na ëllëg bu toogee ci kaw kii toog ci suuf wala bu ëllëgee moom ko xale bii di yónni magam loolu nag lu kii la jigéen nag war na xoolal lool Seydina kër bi mu nelawee soxna Aysa da ñu denc ko ci fi yonante bi tëddoon fi lan ko denc ndax li tax ñu denc ko fa mooy Aysa doomam ci néeg yonante bi ci néeg Aysa la faatoo te yonante bi dañ ne waaw bu faatoo ci ab ni fu mu faatoo fa lan koy denc bi faatoo naa Seydina ay sa may baayam ñu denc ko ci wetu borom këram mu ca daan dugg ginnaaw bi Seydina Omar di nelawee la Seydina Omar ne ko bu ma nelawee doo ma may ñu denc ma fii mu ne ko waaw mën naa la koo may xam nga ne loolu dara gënu koo doon tedd nga yow sa sa doom yow mii baayam yéen ñaar ngeen yor ngëneel yoom kenn dabu leen bu dee ci góor ñi kenn yaa ci gën bu dee jigéen ñi sa doom moo ci gën loolu tedd nga la loolu jigéen a koy liggéey moo koy liggéey fa muy dem lay xalaat fan la mu baax la moo tax Seydina Aysa euh, bi mu dencee foofu yonante bi bi mu fa dencee Seydina Omar bu njëkk bu fa daan dem du muuru du def dara day dem waaye bi fa Seydina Omar a demee dafa mujj di muuru yaramam kon loolu ay ngëneel la ci Seydina Aboubacar yu baree baree bari sëñ sëñ Tuubaa wax na ci lu baree baree bari ci Seydina Aboubacar ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah